foriyooley ñuwoolo goy na ko daan jël ey waawaaw waawaaw tey la sàmm yaane ngaan njaay oy woy ngewol yongu na waawaaw ma dellu cosaan maam wéetal na maay sunu sabar yi cosaani maam maam weetal na may ngéwal yëngu na bu ngéwal yëngoo coow li day bari ngéwal yëngu na bu ngéwal yëngoo coow li day bari sunu sabar cosaani maam maam weetal na ma ngéwal yëngu na bu ngéwal yëngoo coow li day bari. ngéwal yëngu na su ngéwal yëngoo coow day bari. sunu sa cosaan ma ma wétal na ma. ngéwal yëngu na su ngéwal yëngoo coow day bari. doomu géwal bu dee jooy Amadou Mbaye. njogu la koy naxee. kaay ma wax la li nga koy naxee booy. ndeysaan. dee ko naxee jul. ba der ba mbëng ba tunga neey ey ey ey kuy doomi ah. sa loxo ca kam yëngu kuy doomi gewal yëngu leen yow jugal yëngu bilaay yëngu leen ay waay gewal bu gewal yëngu cooli day bari cosaani maam cosaani maam cosaani maam kenn du ko yor di ko sàggane cosaani maam kenn du ko yor biko sagane na cosaani maam wani cosaani maam kenn du ko yor di ko sagane cosaani maam kenn du ko yor jeey waaw xolal bilay njawala neex njogu mbay xolal njawala neex yee ngewala neex bilay walay njawala riis bilay walay defri bilay walay njawala neex yee waaw ngewala neex te wala riis nee la xolal sun baay ya ñu ko jàngal du jur muus sun baay ya ñu ko jàngal du jur muus jox nu galañ wanu nu ñuy tëggee ni mu yaato ñoo fi gën a galañ tey ma paraatike xalaak ma sin de ba maa ñoxoor ko dum ci làmbaay wayal alaaji mbedd mbaay sa baay la ni jooy to noppeegunu mooy baayu aliyu baay di baayu dambaay loolu dëgg la baayu amadu baay ee eh, wuy jooy sunu sabari cosaani maam dun ko fawe sunu sabari cosaani maam dun ko fawe ndax yan sanga gis ko ba teral yaay boy xoolal yéen sax gis ku mbax ba sagal yaay cosaani maam cosaanu réew kenn du ko du ko saggane cosaanu réew kenn du ko yor waa alaaji mbedday sunu baay sunu tëggee ndaanaan la sunu tëggee ndaanaan lan ñuy doomi gewal xala mi si de bagoor maañ xor këdum ci lambaay amodo wayal wayal doomi ndaanaan nga. ñooy doomi ndaanaan pire. doomi gewel pire. xoolal ñooy doomi eh, lu jëndi ragal géej. juddoo si ndox mi. màggee si ndox mi. lu jëndi ragal géej. lu jëndi ragal géej. juddoo si ndox. màggee si ndox lu jëndi ragal géej. nee la xoolal. mag du mbokkum yàlla waaye xoolal. yàgg naa moom. mag du mbokkum yàlla waaye xoolal. yàgg naa ak moom njëgu mbay na xale yi ma ngi ma ngi ñaanal gone yi ey yow la sama yoone ngaan njaay digi digi joor na nari góor yi leen ko man waral ku te nga toog coow li léegi mu leer. cey leer. na ba noppi kaay. coow si pilu bu tebi. xoolal gaañi amulu baag la. nga baag den baawal ga. ah soxla yaa jaroo. yee xoolal. mama ñu léegi mu leer. coow li leer. na ba noppi. waaw waaw loolu mënta ñàkk wet cekkit cër waaw yow Aliou Mbaye xàllang bi si góor barke Serigne Saliou boo nekkee fii tey la ñëw seet si wax ba mu neex ndax yaay suñu sang ndigaay mbay di moo ñu xàllal lii tey waa baay daam la ñuy wooyee sa baay barke Serigne Saliou Mbacké dama wax nag damay gàtt mi tuuti taat moo tax ma ko ci Aliou dara yàqu la riisa ci xol pire ngi ci juddu dara yàqu la sama bi dara yàqu la dara yàqu la dara yàqu la dara yàqu la waaw waaw cey cey waaw waaw ay jëleen tey gumba leen gumbe fi xew àdduna amul solo maam yàlla yaa wàcce gumbe ñuy bégalante ay waay gumba leen gumbe fi xew àdduna amul solo Njombe ñuy bégalante waaye gumba leen gumba bi xew àdduna amul solo maam yàlla yaa wàccal gumbe ñuy gumbalante gumba leen gumba leen gumba leen wàcce gumbe ñuy bëggalante gumbe leen gumbe a xew àdduna amul solo maam yàlla yaa wàcce gumbe